Koumpentoum préfet bi di Amady Mbengue nee na bëgg na daal nguur gi ñu daal di gestu service technique yi rawatina sapeur pompier ndaxte lakk yu bon yi nga xam ne amoon na fan yi ñu weesu ci dëkk bi ñu naan Ndaam ak dëkk bi ñu naan Njàmbur taxoon na daal dañu mujj wut wàllu pare sapeur pompier yi nekk ci Koungheul. loolu moom damay lancer en tout cas un appel à nos autorités pour que ñu renforcer suñuy sapeur pompier surtout parce que lakk bi bi mu amee xawoon nañ jaaxle tuuti wante suñu xel daal di dem si Koungheul en tout cas commandant bi nekk Tamba mu ne daal day xool brigade bi gën a jege mu ñëw fi mu nekk waa Koungheul donc intervenir nañu Ñambur intervenir nañu euh, Ndaam pour dimbali euh, sunu agent yi nekk fii au niveau euh, local pour ñu fay lakk gi mais avec beaucoup de difficultés. conseil départemental bi ci njiitalal Omar Sy daal di indi ab ndimbal loo xam ne dañ ko jagleel njaboot yi loru ci lakk yi nga xam ne am na ci dëkk bi ñu naan Ndaam ak dëkk bi ñu naan Njàmbur. te di leen eh, masawu ñoom tamit xam ne ne liñ leen jox doyul leen waaye diñ leen di woon ñun ak ñoom ñoo bokk naqar bi te vraiment di leen ñaanal ndimbal di waa président la la république surtout mu bàyyi xel si njàmbur nga xam ne ne festival pencum ñaan yi bu ñu organiser Bour Kimintang Kamara foofu la dëkk te ba léegi ñu ngi am problème satudo te yàgg nañ si dox kon ñu ngi ñaan président mu bàyyi leen xel jàppale leen yàlla bu ñuy wax rek dëgg te yàlla tax li takoon population département Koupantoum woolu leen ba teg leen ci conseil département bi ñu ngi koy doxal. ci maire yi nga xam ne ñoom ñooy jiite communes yi nekk foofu foofule nañu xoolaat bu baax doxalin ak pexe yi nga xam ne war nañ ko def ngir nag ñu def ay lotissement yoo xam ne kër yi danañ ci xàll ay yoon yoo xam ne ëllëg si biir ay lakk ak ay daay bu fekkente ni am na ay sapeur pompier ki eaux et bu ñuy ñëwee seen citerne yi am ay yoon yoo xam ne danañ fay yegg ngir fay lakk.